Monsieur le ministre, je vais j'ai commencé, le département de Tiawan a eu des problèmes. Le problème, c'est que j'ai commencé au lycée de Le lycée de a déjà 30 classes, 30 salles de classe là, pour 3000 élèves. Il y a 3000 élèves dans le lycée. 30 salles de classe entre première terminale et seconde on a 18 classes de seconde 16 classes de première et 15 classes de terminale donc chaque année a am bousculade parce que day am de dañuy jàng génn ñeneen donc ça c'est dans le lycée qui existe. existé cette année def avez fait un décret créé CEM Mansourci Sy def lycée à partir de 2023 je pense que l'OLO aussi il y a de l'espace mais je pense qu'il n'y a pas assez de nombre de classes donc je pense qu'il faut aussi que ngeen bàyyi parce que janvier 2023 là va recommencer. commencer beneen bi sur CM CMI. CM saint euh, Santhiou Pire demandé terrain, terrain, terrain terrain est disponible donc loolu aussi on e a déjà la délibération avec le terrain pour le bi donc je pense que c'est ko joté du problème Mais bi damay wax ci Pire Pire CM mo fa la commune de Pire 1000 élèves sont fi euh bi salles de classe fa nek 5 salles de classe yi ñen ñi dañuy jang ñi redistribuer dans les écoles primaires donc ce qui aussi vraiment war nañ ko ndax Pire commune la am nañ bari na ay élèves té buñu ñu ëppee rek dañuy demaat si beneen beneen truc monsieur le ministre am na aussi beneen ab problème boo xam ni dafa am ndax da nga def benn arrêté interdire les fascicules dans les dans les lycées certes lu baax la mais nit ñi dañuy wax ne depuis dix ans jotuñu matériel didactique comme jotuñu dix ans matériel didactique nag daf leen di permettre il faut amuñu matériel didactique en maths et en français donc ñu fexe ba yónnee leen comme dañ leen interdire nous ñu ñu joxe particule ñu fexe jot matériel didactique bi loolu aussi ñoom ñoo demander demandé damay jottali rek dire. Bien évidemment, il y a aussi daara yi je pense que monsieur le ministre a na cantine scolaire mais cantine scolaire nous dañ ko dugal ci daara moderne d'abord parce que nous ñu ko dugalul ci arts moderne parce que dañ koy dugal si école yi mais dugaluñu ko ci daara moderne modernes. je pense que des moderne modernes comme si yéen la bokk mun ngeen ko des dugal mais daara yi nga xam ne du ñu daara moderne ñoom aussi war nañ leen bàyyi xel ndax daara yi nga xam ne du daara moderne ñoom ñooy génne xale yi di leen neef defloo di leen wax ne na jëm saraxu ji ci mbedd yi comme am ngeen cantine te ñoom li ñuy saraxu yëpp pour lan la pour am lu ñu dundee rek la kon nag loolu aussi dañuy bugg cantine scolaire comme dafa am da ngay jàpp ni scolaire ñi nekk ci daara normal ak ñi nekk ci daara yeneen yi c'est la même chose le ministre budget bi nga am. Si nous avons 10 def ko ci affaire parce que nous éducation base bi moy lan base réussir rek nañ réussir parce que daara yi rek pour ñu dem di jàng ba pare di leen yar en même temps di leen jàngal luy nous xam leen lan lañu donc loolu am importance la en tout cas dañ di remercier di wax suivre. xam nañ yéen a ngi topp ci liggéey bi guddeeg bëccëg di daw guddeeg bëccëg mais nag mënut a ñàkk ñu ne leen dolli leen kenn kuy liggéey ku nekk ku liggéeyul kenn du ko ne dollil ku liggéey lañ naan dollil en tout cas ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum merci. merci.